kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mu sëñ Moustapha Bachir moo fi teewal sëriñ Isaaxa waaye nag sëriñ maam Thierno mu sëñ Muntaxa daf doon ñëw te xam naa yeex naa ak si am na ngant ndax nekkoon ci ndigal kon dañuy jox sëñ Mouhamadou Lamine Baara mu yëkkati kàddu ci turam rek ndax benn la doon de sëñ Isaaxa la fi teewal moom waaye mu yëkkati kàddu ci turam ñoo ngi dalal ba léegi it suñu mbokk inspecteur sëriñ Xaadim Kan mom tam mi ngi ci jotaay bi ak niki non nima ko waxe won inspecteur Serigne Khadim mbake ak suñu wayjur Serigne Moustapha Diatara mi nga xamne mo jité jiite kamil kon ñu jox serigne mohammed Lamine Bara mu yëkëti kàddu ci serigne mam tierno mu serigne muntaha bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ak kay mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen siyar yéen ñëpp euh di wax ne bi may ñëw tay euh serigne ishaq mu serigne Bachir. مسني بسيرو ماما وون ديمب بعون ماتيال قطية تايبي غير نيوغوكو سين ساليو سلام أغلقي بيميدف تيرنبي نتاما نيور دانا خمنا لجيه إنر دي مثلا باي المساج بي ناجي تجوم أمون تنيوفي سوبي سوبتيال مخيوال مبوبهم سنيار ماشي ما نكون إن شاء الله ما نكتي واجد ngir teew fi xam naa euh, euh, yàlla dafa dogal bi mu ñëwee euh, fekk naa fi mbokk yu bari ñoo xam ne xamante nu yàgg sëñ Omar Seydina Omar Ba mi nga xam ne dañoo bokkoon nekk France ci <laughs> jamono yi njàng ma ak ak yëngu ba foofa yàlla def nag sëñ bi sëñ saaxa li tax xam naa yitte ñi mu am ci lii man moom ma yar sëñ Moustapha Bassirou mooy sama waajur waaye moo ma yar sëñ saaxam xamna naa yitte yag am ci xam-xam ba bop outiko seigne Mamoun legi su ngeen mi ngi koy netti seen qui bañ fa ñom ci Maroc <laughs> euh, ak num ko ku ku ak tassaré nyanglem Shahul Khadim lu ko la sax ngi <laughs> Euh, ci manam ouvrage bu mel nii nga xamné euh ouvrage euh bu meuna diffuser euh, xamlé surtout sëñ bi la lu matoon a euh, traduire la ba yaatu ci yenen langue yu dul arab kese ndax dafa melni so setlo ni ngay les genèse du livre bi ay interrogation la yo xamné xeyna kenen na keneen moo koy laaj koo xam ne la jogué kon nag eh, fexe woon ba mu nekk ci langue yu abordable ci ñeneen dana ci am solo lool sëñ Issa xam naa yitteem yëpp mooy sant ci taxawaay bii eh, sëñ Thierno ndeysaan xam naa teew mënutoon teew ci jataay bi ni mu ko bëggee woon waaye moom it noonu laa xamee ci yitteem yàgg nañoo jaxasoo lool ci yitteem ci xam-xam ak ci ak ci ak ci dox ak taxaw ci lool loolu nag ndeysaan da ko jëlee ci sëñ Muntaxa eh, sëñ Muntaxa moom day nitug téere xam naa xam naa xëy na ñu bëri xam nañ ko sax daa mel ne dana wax ne su fekkoon day am métier xëy na ab libraire lay nekk ci wàllu téere lay yëngu <laughs> kon nag euh, lii ñu ko lii moom lañ ko defal euh, mi ngi ci ñu ngi ci sant bu baax a baax di ñaan yàlla rek euh, dimbali ñu te ji mu am ci xam-xam muy ci bërëb bi ñu toog muy université bi complexe Cheikhul Khadim bi muy ci à travers ouvrage yi di am mbokk yoo xam ne lu mat juróom fukki at ñu ngi ci gëstu di ko kii ndax xam-xam day loo xam ne warta taxaw docteur Khadim Sylla mi ngi koy juñ sànq day lu am solo dafa war di nekk ak euh, sëñ Mbacke Abdourahmane koy dégg mu koy wax ci waxam euh, xam-xam day loo xam ne bokk na ci li ñu taxawloo ñun ñi mooy dañuy taxaw fenn di baamu di baamu di baamu euh, kon nag jàngataat dong sax mën naa indi ak yeesal ci mbir mu ne mooy seen wax essentiellement ci ci li jàpp te jàpp naa ne mooy yitte ji ci téere bi kon nak ndaw ñi am nañ it am nañ ab buntu bu ñeen leen ubbil ñu war ci gorgol ñun ñëpp inshallah kon nak doole sant rek ak ñaan yàlla barkeel liggéey bi te ubbi ko bu baaxa baax ci kanam ñëpp inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ma kay jere jërëjëf seigne mohammed Lamine Bara moom seigne Moustapha Bachir mo doon wax ci turu sëriñ maam Thierno mi nga xamne mom lañ dala jale bis bi waye mu tew fi ci turu seigne ishaq mom seigne Bachir